لم يمني سجر ولا وعيد وأمري إلى الجنان عيد أخفى لي سر المصون الله حبا ولا إله إلا الله هداني الله وين البديع وخادني له بألواه البديع برأني خالق من سواه وخادني ما لا يرى سرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأقدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد أكرمني الله بشكره وما لاختاره وليقاد لخوما باهابي الله كرام الخرى وببقاء النبي سرى حبات سل جلالي والإكرام لي خلدت مراقب الكرام إلى يقاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست أسق أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون إن الذي من الإله أصو خاب عن الكون وفيه فص دلان يله على الله بلا تقرر وأمري تقبلا خابت قلاتي مع أسادي مصمني أص بلا كسادي وخاني الباقي به سمورا تجارتي لديه لن تبورا وخاني الباقي بي صبرا تجارتي لديه لن تبورا وخاني الباقي بي صبرا تجارتي لديه لن تبورا لم ينقني ما باء الله فضلا ولا إله إلا الله يقول لي بلدي إن صمني من كان لي وليصفى صمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نهاية وتابت قربي نزاء للإسلام عند خربتي لدى الجزائر منير تربتي نسي لي نور لساني والكتاب أسمان خدمتي لدى أهل الكتاب تشيل ما ثبت للمسافر أعنى يميني أن أسد ومن دفعي هداني الله وسع صالعين إلا سوى أمي رب سلمين وجهت للهادي عليم أقلي وفكرتي وهو ينير نقلي يقود لي نورا وأبقى البركات وذكناتي غدا والعركات علمني تهليم من لا يخفى عليه سير كان لي بالأخفى له تفاكري وصمتي والنظر ولسوى أخلي صاف مازر له كلامي وله إقبالي وأملي وليني ربالي ملكني الألفاظ والمعاني وفاتك بلا أكون معانيا كون لي إطلاقا للمراد في سر والجذر بلا أمراض من أتلت علما وصايا ما تعدد وللخيور الجماع أسأل وتليم ومنقول بالكسر والأسرار والمنقول لوجه الكريم أبد علما ينفعنا ولا يلوي صلما له كتابي وهو العليم ونيتي لوجهه تعليم هب لي يا وهب كون عقلي ككتب خد سلك في نقلي هب لي يا وهب كون عقلي ككتب خد سلك في نقلي subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifaan wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin allaahu hayyun samadun wa baaqi subhaanahu suukan fil wawaaqi wa nahnu fii kan fil manni min kulli sharrin wa asan sanni mustamsikiina bil qiyaasi ahmada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 أسلم له كل كان إيماني ولا أسم اللسان للرحمن واجه بالشكر بلا كفران تكفى حسابه مع الميران سبحان ربك رب العزة ما يصفان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنت رعيم صمد رحمن رحمن المؤمن المؤمن المنان إنك في البلاء وجملة الوباء وصف إلى الأخداء كل داني اليمن ويسر وخير سددي في خير سكر قد أتى بالمدد اليمن ويسر وخير سددي في خير سكر قد أتى بالمدد قد فأخذ كل سكر سكر الأعدي الملك المكرم الملتعد فاز سهيل بالقران المندي نجا بما يجيء خير سد فاز سعيد بالقران المندي نجا بما يجيء خير سد فاز سعيد بالقران المندي نجا بما يجيء خير سد كي وخي لي بيت دوي وخلقه rusumakum Seex Anta ki wax lay béy du koy waxantoo déedéet mooy xaadimu rusumakum Seex Anta ki wax lay béy du koy waxantoo mooy xaadimu rusumakum Seex Anta te mooy magum Sëriñ Masamba Mbàkke te mooy sëriñ bu mag bi fii te mooy que Seex Ibra ba gis ko boole room nga ak juróom jébbal ko te moo dajeeg noonu yi caaman jëy sa ñu xuus ci géej gi ba caam man ñu dem nga bom dem fa ñu naan maayo mbaa te téewu koy duus di way yonen baa ñu wër ba sonn jaaxle ngir fexeel ko ñu far ko delloo fii si ñeel ko boobee la way mu nawiru suduuri la daa manaazil wa inda duuri nasamoo xadimu amad ak sasin bëhdal anaamin jëy sasin ligal sasin moo tax sëriñ ba Seex Mor Siise moo jot ndigal sotti ko fii xirtaasi def wa salaam jami siñee ca booba jébbal ko Seex Fallu ca booba moo tax ba Seex Fallu foto jumaa ji def ca foto sëriñ bi ak jumaa ji def ca signaturam bi aaye njaay xam na ne lii njëgëm amul ci réew mi am nañu naa saqun min al-aqwaami wa saqu asbuuri kasaalayaa bi ku bëgg a xam luy coono lii ci téere kookee nawul mu nawiru su duuri su ko yëri dey sa sin mu coono ya jeex mu teg caamam gag sa sin waxal kisi kisa ka mbaa muy weddi na ma wan ko gis du ànd ak weddi coono ya moo ci asratal laxwaani lii de sëriñ ba wax bi laa malaami li tàmbalee ci jëy sa sin ba jeg sa sin loolaa di asratil nga teg gag sa sin baaxi Seex Bàmba xajul ci téere laaj ko géej gi mbaa wa alihi wa sahbihi al axyaare ma nopp ma dellu seeti tooyal xoli jullit yi sotti kooti jox leen ma nopp yi ma dellu seeti tooyal xoli jullit yi sotti kooti amaana ngay gis kuy nelaw bay gént dama na yee nit ba mu yewwuy sant daay sulli ay jaloore yooyu sax suuluwul ngir dara jaay nabi ba tey ñu koy man lii ma wax donte le daa caa nekkul jëlal la tey njariñ jëppul ma gàkkal kii may misaal daa xew fi muutul xew jéeg murit gi moo ko tawee salika fadlu léegi laa koy tàmbalee tuuti man gi saw sëñ Fallu ngi ne salika fadlu léegi laa koy tàmbalee tuuti man gi saw sëñ Fallu ngi ne laylatu israhi yàlla def lu ne ca la ganee addina lee tax du ko ne moo dàq xiif dàq fi ràgg ak ràmm génne fi rafle may na réew mi jàmm al yawma akmaltu yàlla wax rasul sëñ bàmb ñi ñëw nag bi xaadimu rasul moo def sëriñ fan lu matal simbam yi ma wax la sëñ bàmba lu doon simbam yi moo def sëriñ fallu matal simbam yi maax la sëñ Bàmba lu doon simbam yi ñaar la bëggoon mu doon yàlla ak yonent bi xanaa la koy ñetteel de mooy dëkkam bi te suñ borom gannaaw deful lu ñuy gis waxam la wàcce fii fi ñu koy gis bëggug sëriñ bi moo ci tuubak alxuraan sëñ fallu lii la def ci tuubak alxuraan bëggug sëriñ bi moo di Tuuba ak alxuraan sëñ Fallu lii la def ci alxuraan ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett yu la bind mooy oroo fi Tuuba ak la gën a moo di xët mu nekk ñaar fukki bind ak juróom-ñett lay ku wedd lii ma wax demal ba wax ne Fallu mi ndam la gàddu ko

daa doy sëkk ak barke neel ñu tuut ma nettali ko Serigne Khalil moom dafay nekkoon nga moo di liggéey ñu jox ko fa convocation a tooñ defu ko mu gën ci gis bàyyi ba Cheikh a Ahad mu ne ko sa digg ak ñii damaa fiy dox ndamaay layi ko sa na dal sa xel na dal sa xel na xëy su batee tribunal ne nee na kenn waxu ko dara dul yow demal sëñ Xalil ñibbi si jawal fa baayam koo wax la xew mu ne ko bul na dangaa doon murit li léegi waral foo jëm foo Bamba ànd ak yow ko ne ko ne ko bul nga dangaa doon murit saadiq lii waral foo foo jublu sëñ Bamba ànd ak yow tamaa wutu ko sëriñ Xalil ne ko wax joj nit de na ko sa wax ji moo ko dàqal sëriñ Xalil dani ko doomi sëriñ Bamba doon xalifa seere ne ma xalil déew mi murid saadiq de lii duma ko faye lu dul dal meran lépp jox ko mu jël jël amoon jox ko bàyyi laa mbaa kesam te ko ko Cheikh Abdou Khadir yi tax daa seere seere su muy wax ju doy sëkk muy wax ju doy sëkk muy wax ju doy sëkk boo dee kooka tey kale ko Cheikh Abdou Khadir itam daa seere seere su rëy muy wax ju doy sëkk muy wax ju doy sëkk boo dee kooka tey kale ko day doomi bàjjal mun naa ah sin xal yi du toog sëñ Abdou Khadir de da nga koy topp daal di ne ko sëriñ Xalil sëriñ Xalil moom ma gam Cheikh Moustapha mu sëriñ Basiiru duñ def lu neexul seeni bàyyi yëpp sëriñ Xalil moom lu neex bàyyam rek la ne wéete na ko sëriñ Xaliil moom lu neex baayam yare kalame sorek jegeeyam bu wéetee ak wéetaliku sëriñ Xaliil moom lu baayam yare kalame sorek jegeeyam bu wéetee ak mu wéttaliku sëñ Saliou sëñ Khalil daa jënd benn oto foog caabiye jox ko sëñ Saliou muñ tee ko sëñ Saliou sëñ Saliou ànd ak moom nag di ñaan defe ni daa ñëw di léemu si foog caabir nga delloo ko sëriñ Xalil ne ko bàyyi lii askan bi yow nag su ma amoon avion tey jël ko jox na la ko sëriñ Xalil ne ko bàyyi lii askan bi yàlla nag su ma amoon avion tey jël ko yót si la ko sëñ Saliou daal na sëñ Xalil defoo gu ma woon ne cër bu bii nga jox nga jox sëñ jox nga ma ko sëñ daal na sëñ xali defoogu waan ne cër bii nga jox sëñ Fallu jox nga ma ko nga saa xol te saa aajo faj nga ko tey loo aajo woti danaa ñaan buur bi nag faji ko faji ko faji ko sëriñ xalil yi sëriñ xalil ba tey xasida di ma xat ma tuxal di ma xalil sëriñ di mu xat ma tul xidma da koy durus da koy durus xalil sëriñ xalil sëriñ xalil sëriñ xalil ba tey it ba tey it ba tey it xasida gii di mu xaaj di mu xaaj di matu xitma da koy durus da koy durus da koy durus demam wàññi ko demam wàññi ko demam wàññi ko jëmmi yeneen bi ci biir raw doon ba ak la ñu xool ak la ñu xool ci xeeti weer or jamaa jërë sëñ Saliou mu ne ko noonu yi nga gis na la mel mooy rawdatu mustawaa ak wuute na amu ko Cheikh Abdoulaye bale Touba dàq lépp lu bon sellal dëkkam bii ba baayam dénk dénne fi xiin Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye bale Touba dàq lépp lu bon sellal dëkkam bii ko baayam dégg leen fi xiin ak i tamaani sabar ak xeeti fecc musique daw rakkam yi di faj seen aajo teg mu ci yoon ma wax la tuuti ci ak soppam sëriñ bi nga xam ma wax la tuuti ci xam neef kanam amugul fii nag amul ci feneen kenn mës la laaj milliard ak genn wàll bu mag ci fukki fan da sa doom benn dërëm di defoon di yërëm li dund doomam jël mës la tabax mbaa terrasse mbaa yàpp bu neen kii xam nga xoolu njaboot bàyyi tool ni mu booy koo gis dëgg soxna yaa doom yi ñoo ko doon ma wax la tuuti ci ak soppam sëriñ bi nga ma wax la tuuti ca Sappar sëriñ bi nga xam ne am kanam amagul fii nag amul ci feneen kin mës la gis nit ku jël rakkam de def ko sëriñ sa rakkam yëpp la jël teg leen ca kaw def leen moo jëkk a jox doomi sëñ Tuubaa yi dund bu doy te mus la la loo xam ne wooyuwu leen mag ñi doroon sëñ bi ñoom ñëpp sant nañu jigéen ñu baax ñee di waa barsax fàttewu leen nun ñii di sàmbam sugum ngay sax tiru am nañ ci laa danaa wax kir ya ak yu daan waman lahu na waman lakum waman lahu moom la naar ba wax boo xamul luy lii ma ñëw firi leen lahu na mooy jànq ji ñàkk jëkkër bëgg a sëy lahum di seen bàyyi lakum mooy góor ñi ñàkk ñi cam kenn mës gis nit ku may ñeen fukki jànq jëkkër ci genn ngoon teg ca berndeel leen fajar ba tàngoon danaa la wax la wax fukk ak ñaar nag yu am ci ayam ci fii di Touba mu doon ay ndam yu sëñ bi bëggoon caat la doon yi sëñ bi ràññ ko fis lu jiitu muy jiite ñaar ak ñett ñoo fi besoon caag la Touba set ci lépp lu bon lu jiitu muy jiite Touba ak Kayaar ayamoon caag la Touba yokk wàll gu ne lu jiitu muy jiite Touba ab la turngeen la jumaa ji yokk neex a jullee lu jiitu muy jiite jullee bii lu metti la waan la ñu am corniche ak i autoroute lu jiitu jiite yoon yi yëpp ñan la waan cat am la Serigne Touba di am file kër lu jiitu muy jiite mbaarum sëñ bi sax amuloon cat am la déree kër yi soog am lu jiitu jiite gaal yi sëñ bi moo fi amoon cat am la forage yi dem fukk lu jiitu jiite ab forage la daaru mën naan te tax bu forage yi paanoon. tuuta koy xaw a yëg foras bay laat bu paanaa tuuta fii mën a naan danaa la wax ikami bay laat nga yéemu ci moom nga xam ne luqumaanu hësal asri rakk la woon ne ñett ku ko bañ ñett ngi ñi bu mooy jaam jabar doom su ngeen dégloo mara ñene leen nee ku bañ ku lay bañ bul jaam nee ku bañ ku lay bul jabar ku say wax sax doom ya daa mabuloo te daana wax it ne pëstéef ak palaa jege nañu ci kaw tawute ci biir pëstéef a ngi téye leen ni pël palaa ni meng ñii la demee ngir yàlla kenn mënu koo nax daa yitu bi jileen moo tax ba waaja dikkee di fekk rek ca gërëm lii ngay def lam nga jublu ci woon waajooja wax ko ne day feeñal mbégam mu mbég moo tax ba muy fecc lii rek mooy li am du leneen bàyyi laat ne waa jooja boo faatoo ba am ñetti fan nga xam ne mag fa du wàllam fecc teer na ci yéen ne ko mën Abdoulaye da jubal laa def ndax damaa bëgg a dem ku bëgg a dem na nga foog say tànk teg ko ci yoon mboolem bi nit ñi di sàbbal yàlla ak di si kara ak lim bu toll ne feppee suuf yi ak asamaan bi yàlla ko buur soppi muy xéewal ak i këri këri ca aljana jox ko bàyyi laat jox ko njënd yeneen ci darajaay ngeen ji mbindeef ak sëriñ bilaal wa ko di ñaan ci yàlla buur bi sëriñ bi yàlla nu may ak cant may nu ngërëm tamay sëriñ Abdourahmane na di sedd xolam nu déggoo juboo am ngëneel am xorom wér gudd fan am lu kenn muslaam te yàlla musal nu jëmu saak balaa kasara gàtt fan ak deegu na faaw ci liggéeyal Seexul Xadim yàlla xeetu ci lu ñu ko liggéeyal bu nangul nu ko yombal nu addiya yombal nu njël yiir nu aar nu yor nu yërëm nu taf nu jabatam bi mat rasulillahi barkeb Tuubaa ak borom barkeb Tuubaa ak borom barkeb alxuraan ak xasida barkeb Sëriñ Mbàkke Madina وبي

be Hello.